L'arrivée de Maman Lamine. L'arrivée de Maman Lamine. Oh commandant. ndeysaan Mama Lamine ngi noonu dugg si ndeysaan muur nañ ko lu weex sotul ni koy bitil loolu du mën a ñàkk ci illallah Billahi daal lamb laa ilaha illallah ñoom ñaar ñëpp a lambe tey tey ngay gis lépp loo mës gis ci lamb tey nga koy gis waaw waaw oh waay waay waay sama yaram daw na oh. ndeysaan ndeysaan ndeysaan mama Lamine ngi noonu. Ah, da teg loo pare pare boo ngay mujjee doxal ñëw ndeysaan mama la mi nono. oh ndeysaan ndeysaan ñetti yoon sànni na ko ca gannaaw ki tekkalu lamb la bokk ci tëkkalu lamb la bokk. ndeysaan Mama Lamine a ngi noonu. billaay doom Mama Lamine ñëw na ba mu yàggee ñëw yàgg na. laay mbër mi ñëw na. Ay. ndeysaan ñëw na fu mu miin xam nga leen wàcc na ndeysaan mu ngay ñukk <laughs> la ilaha illallah or something. mu ngi ci ñetteelu xibla bi. ndeysaan lay ñëw na fu mu miin ñëw ci digg géew Ñu na fekk si lu mu miin billaay ñëw na. bët bay ñëw. billaay barki leen. dafa sax séeréer tay tay séeréer bi ñëw. wala ñëw na. laay. Alaaji Lamine sek la Alaaji Lamine sek mama ñëw na. maama Lamine la. sama xel kërëb bu ma si daan turandoo maa ngi ko si daan benn dëkk bu ñàmbulum jamme Bilai bilai ka nga tuddee sa bopum ndaanaan la waaye yow ndaanaan nga billaay barki yéen ya ci yàlla Mohamed billaay barki yéen damaa yàgg ak mag ñi wallahi wallaay ndeysaan wallaay loolu Lamine boko ko waxee mën naa ne waaye am na non te ngey jek salum da billaay Lamine mënoo mënoo xam lépp ku xam lepp jóge fi Lamine Seck ndeysaan waaw kii numéro 2 billaay mooma numéro bi day nii nga. <laughs> ko may ci digg bi la yaa ngi joxoñ foo miin. tey sa diggante góor a soog fi bu doon arbitre tey ba pare. bilaay da koo gëdd. Allah barki nant bi du mën a ñàkk wallaay ndeysaan gis tey gisuma koy lijjanti de Lamine yow mi bëre bëre dama ne li ma gis tey jii gisuma ku yor luy lijjanti. yow yow mi bëre naa li ma gis tey gisuma ku yor luy lijjanti si. yile ndax ci ñett la. loolu la wax dëgg waaw ci mikaay ñett la. dama ci loolu. ndeysaan mu ngi séddale suuf sa. Lamine lii bu ñu ko ñaanee ba pare ku ci nekk da nga ci loxo mi suulaat ko ci biir suuf si. bu ñu ko jafee ngi sottaat ci ndox dëgg ci suuf yi mu daal di ñaan ci lay jokkarlu ci mikaayam. Hmm. tank ndey jor la ci tek waaw. waaw buñ ko su tege ci loxoy ba paré ci pax mi la jëmat lepp waaw bu ko fa la jëmat dañ koy sul tank ndey jor ba la ci tek jakarlo ci mikaay ba. hmm déedéet Lamine Lamb. yàgg nga tek ci mikaay de. loxo ndaanaan la. yàgg nga tek ci mikaay mbaba de. wallahi wax nga dëgg Lamine mën ta ñak ya bax kenn du yow Lamine Seck. diggante ak ci wallaay ndeysaan boo ñaan numéro deux seen mbokk ma jëkk yow waaw yilla baaba yow teranga kenn du ko delloo wallaay ndeysaan yilla may nangu baaxul mu ngay lamb ba ay boy ay tali wor rus rus ne ko mu lonkaale mu wa ma ki man pat waaw ha

Lamine xam nga ne tey maam Lamine daf maa saraxam. moom la sarax. billaay daf maa sarax tey. ndeysaan jàkkaaroo nag ci mikaay la. ma jàkkaaroo nag ci mikaay la. gis na ko. xoolal fa mu jublu Lamine fa la ci mikaay la jëm. Lamine waxoon la bu ko dëggee ba pare fa muy jublu fa la ci mikaay la jëm. EDG wëcc. Lamine waxoon naa la bu dëggee fa bu dëggee suuf fa muy jàkkaaroo fa la la jëm. ko koy maam Lamine. bilaay du xale wu kenn ci lamb. waaw maa ngi noonu Lamine sarax bi na tey Lamine. bilaay barki dent bi Lamine fi may wax ak yow nii ñu indi nii moo koy jiitu ci Mikaay mu da koy jiital doo ko àgg ci ci Mikaay la Lamine. mu koy jiital ci géej bi ba pare. jiital waaw waaw waaw waaw waaw Lamine Lamine gàllaaj boo koy sangoo sax gàllaaj boo koy sangoo. boo ko defee ci soo. ah ndox ma warut a jiitu sooba te sooba da ngay soti galaj ba pare dogo jël ndox ma doog cee sotti waaw ndax ñaan du jitu borom. wallahi ndeysaan mamati ah dafa lambe tay dafa lambe bilay bëgg na bëss bi mam la min ñew na bilay mam la min ñew na la rivé de mam la min la rivé de mam la min wala jëlam yi nga rek waaye Malika nee na ko yaa géré sama mburu ak chocolat mais maama. mburu kese la andi andul chocolat. non dama da koy bër non da koy bër soow mi ñëw na. non poñsee dama ne soow ma ñëw na. poñsee tuus ma. la kos. billaay ko fekkewul tey Lamine fekkewu dara tey Lamine. ah non tuus ma moom du ma fekke balaa. la ilaha illallah la nga ndax la mama ñëw na. Lamine ñun ñu kenn benn mbeur lamb rek lañ bëgg ku lambe ñu bëgg ñaari mbeur yi lambe lañu bolé té bi diggante góor soog lamb lañu top Lamine Seck té Omar wa Lamine sama sama waaja men dama fay sama ndeysaan ndeysaan tarkindaa yi teel na ñoo ñëw Lamine Seck Mama Lamine 15 heures waaw ndeysaan waaw ndeysaan ndeysaan Mama Lamine ba nii nga toogee mama loo yëg. ndam rek ak suñu faalu mama lamine loo yëg ndam rek coow li bëri na trop mama lamine bu bare ci nit ñi la mais du ci man la ilaha illallah dégg ma nga ne ya nga dul dara bu bare ci nit ñi la mais du ci man ndeysaan yalla baax na yalla yàlla sutura ak ay ndanan mama lamine ñëw na